wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonewu ci chaîne YouTube Tanim TV Tanim TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér te wóor aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya da mbokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi fii tey ci Mbàkke Kajoor ci bis bu tedd bu màgg bi nga xam ne moom la ñuy màggal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke ibnu xaadim rasoul ñu fekk fi sëriñ ahmad laxat fii ci kër seex baara laxat mbàkke moom it mu nekk fi di ko dundal ci jàng alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi bis bi yaakaar naa ne képp ku mën a nekk ci àdduna bi bis bi fii la koy fekk ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ndokkeel ci bis bi mbooloo mu bari ak wëllëreem xaritam ñëpp fekk si nañ ko fi ñu bëggoon mu sànni kàddu ci bis bi nga xam ne mooy bisub Seex moo du asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Sall ñu jox seen wàccuwaay di ñaan suñu borom def taw tawfeex ci mboolem ko teew ci ci ci ci jotaay bi rek ñuy wax ni ngay bu baax nag ci ci sa teewaay yooyu ndax bis bi yàgg nga yàgg nga fee teew yàgg ko dundal yooyu itam te lépp dara war ko topp jaxetali sëñ sëñ Tuubaa rek kon nag liñ ci ñaan mooy lépp luñ ci amee rek yàlla suñu borom boole ñu ko saay doo bàttin ngi lay siyaar bu baax na wax yàlla de gis sa taxawaay bu baax ci ci ci diine ji waxuma sax yor murid waaye diine diine gi laay wax gis nañu lépp lu xew ci yor murid wala lu xew ci diine rek boo fa teewee da nga ci feeñal loo xam ne sax nit ñu bëri daañu daanaka euh, bu fekkoon ne teewoo fa maam mën nañ ko bañ a xam te loolu da yàlla tawfeex la ci mboolem koo xam ne da ngay dund diine waaw loolu moom wax naa ko yàgg na ko wax sax na wax ne yow dañ la war a bàyyi xel bu baax ndax wax dëgg yàlla li nga xam bari na te li nga xam lépp lu baax la te itam da ngay feeñal lu bari loo xam ne itam ñaari ñaare euh, gis ku ko mën a feeñal du yomb seetlu naa ko baax ci kilifa yi ba di ngay defal ay jotaay daanaka ba seetlu lu bari da ciy feeñ ngir ni ngay waxee ak ñoom loolu lépp itam doon loo xam ne ay ngëneel la ci képp koo xam ne danga da ngaa bëgg diine fii nag dëkk la boo xam ne moom euh, fi la xawee xam naa yaa ma ci yaa ma ci a xam dara sax waaye daal li ci li ci daal mooy mooy que ni daal ko bëgg lu baax fi ñëw waaw loolu moom loolu daal mën nañ ko ci sànni daal ci kàddu yoo xam ne daanaka moom lañ mën a wax ci lu ci li gën a gàtt sëñ ma yaakaar naa ne xam nga kër gi ak sëñ Seex maa ngi koy wax léegi ne ko ñun fi daan ñëw di fi daal ñaari néeg fi nekkoon sa benn néeg sa da ko daan jox njëkk studio tey nag maa allah loolu lan lay firndeel. Ah, mooy loolu mooy mbirum suñu coow moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te fii nag lépp fi la xewee wax naa ko léegi ci xam ma lay yàgg nga yàgg nga yàgg nga fee teew yàgg nga ko dundal kon yow daanaka lépp fi la fekk waaye li ci gën a gàtt mooy suñu coow mbiram moo mel noonu lépp loo xam ne ci moom la bokk ku ko dundal daal di daal ci gis sa bopp waaw ndax moom daraam gënul diine te fii nag lépp fi la xewee man naa la yoonu murid maanaam mënu ca génne génn keno ci kër yu ko téye yoo xam ne day génn dëkk bi kon fii nag wax dëgg yàlla ku fi nekk te yokku woon nag war war ngaa xool sa bopp waaw loolu daal moom a ci nekk waaw sëñ Cheikh nag moom ni koy waxee rek daanaka mun ñu wax ci moom ndax nit moom boo bokkee moom lépp tey bu ñu tudd tudd sëñ Bara moom moo tax ndax ci moom la ñuy suñ borom jaarale ci ci sëñ Tuubaa ci eh, deret kon eh, wax dëgg yàlla ñun amuñu dara lañ mën a wax ci lu daal di ko ñaanal suñu borom guddal fanam eh, ba yéen yi mu am ci liggéeyal suñ Tuubaa sëñ Baara ak mboolem li diine lépp suñu borom matale ko kon ni mu ko bëggee waaw loolu daal moom mooy kàddu yi nga xam ne mën na ko ci sànni daal waaw. jërëjëf sëñ ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mën nan sax mën nan laa jottali cantuk sëñ Cheikh Baara ndax saa bu waxtaan ci yow mu ne ma man de. xanaa lu ma ko tegut ak lu mu du sama soxla waaye lu ma ko teg dina ma ko defal lu ma ko teg yi ma ko tegut sax da koy def wante wala lu ma xam ne sama soxla la moom su ma ko waxee mu def kon loolu day wane rek gërëm na la sant na la bu baax a baax te loolu feeñ na ci yow ndax li nga yor xam nga ne ngërëm la xam nga ne li nga yor ngërëm la kon yàlla na sax ci yow te yàgg ak yow te nga gën a doon barke ci yow gën a doon ijaaba gën a doon tawféex bis bii ñu ngi la ci ñaanal loo mën na yàlla na suñu borom yokk ci barke sëñ Tuuba xanaa kon ñu jox sëñ Saliou rek kàddu mu sànni ci tuuti sëñ Saliou Euh, bis bi yow kenn du la ci am occasion bu ndaw lu mu gàtt gàtt <laughs> ñu exploité ko rek bëggoon nga sànni ay kàddu ci bis bu tedd bii nga xam ne mooy bisu Cheikh Modou Lamine ñu fekk la sa xarit nga xam ne moom daanaka ku la gis-gis la euh, da ngeen bokk ak bëgg far sax ngeen a bokk bëgg ba far doon benn bisimilah ñu bàyyi la yaa ngi Mbàkke Kajoor jërëjëf sëñ Saliou ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad fedali suñ kóolu Cheikhul Khadim di ziara mboolem mbokk yi di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni moo toogee jotaay bi Cheikh Mouhamadou Lamine it yàlla yàggal ko fi yàggal ko ci kanamu njabootam gi di la nuyu bu baax nag sëñ Saliou di nuyu Serigne Cheikh Baaralaat mi nga xam ni eh, ci barabam nga ñu fekk ñu ànd fekk sunu wolore bi ni nga ko waxee sëñ Ahmad Laat eh, nga xam ni ni nga ko waxee rek noonu la demee benn lanu waaye bis bi di bis boo xam ni bisub yoonu murit wépp la. ndax barab bi mooy barab boo xamante se dafa historique ci yoonu murit euh, yoonu murit su fekkoon ay nasaraan la ñuy wax dañ naan fii mooy berso yoonu murit mooy fii la Sëñ Tuubaa génne woon ci bis ci weeru koor ñaar fukk ak juróom-ñaar di bisu àjjuma wax ni saafahani rasulullahi bee xawli rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar si faqat kon fii la yoon wi sosoo ñooñu nga dégg ñu leen di tudd te ñu kàngam yoo xam ni duñu woon ñu mën a ñàkk ci yoon wi ñëpp fii la ñu jébbaloo ci sëñ Touba ànd ak moom liggéey bi ba yàlla dogal ki ñu ki ñu del si fii di ko màggalal lii muy Cheikh Mamadou Lamine bis bi mu ganee jamono la leen sëñ Touba gërëm kon loolu rek ay mbir yu coïncidé yoo xam ne la euh, yàlla rek moo ko mën a tàggatal ab jaamam te moo tàggatal yooyu yëpp sëñ Touba ndax ñooña rang booba ngay dégg yëpp ci barab bi leen jébbaloo woon barab bi biñ fi jébbaloo fa Cheikh Mamadou Lamine ganee jamono lañ leen gërëmee waaye fii ñuy màggale si Cheikh Mamadou Lamine lañ lañ lañ jébbaloo woon ñoom ànd fekk sëñ bi liggéey bi ba mu yegg fi nga xam ne fi la yegg sëñ Baara nag doon koo xam ni diw doomi sëñ Touba la doy na sëkk maanaam sëñ Touba euh, li li ñuy wax fardul alam la kenn la koo xam ne buñ la nee ci moom nga bokk boo yegsee ci moom tey bu fekkoon du waajuram di maamam it buñ limee ba egg ci Cheikh Ahmadou Bamba mën nañoo taxaw waaw fardul aalam la buñ nee diw sëñ tubaa jeex na ganiyun anit taarif léegi li arab yi wax doy na pour nu xamle nit ki diw ci sëñ Touba la bokk sëñ Baara nag doo wax benn doo wax ñaar da nga naan sëñ Baara ni sëñ Touba doy na mu wëlbatiku nag di taalibeeb sëñ tubaa ndax am na fu ma koy wax barki rek ni jàng naa ci mbindam ci benn barab mu wax ni man li ma sant yàlla mooy wommat gi ma wommat ba Ahmadou Bamba mii di sama sëriñ waaw askuru rabbiya ala ma xaada lana alxadimu seyxuna fan xaada fa nicmatu rahmaani la tuaddu kooku nag ba mu melee noonu da koo doxal doxal ko doxal ko ba am ngërëmul borom Tuubaa Sëñ Tuubaa wëlbatiku dëgal ko fii nag mu nekk fi di dimbali jaam ñi di jàngale alxuraan ak faj aajo ndax moom adresse am mooy mu darrisul xuraan waaw doomi Sëñ Tuubaa la jàngalekatu alxuraan la moom la daan adressé boppam daa dimbali jaam ñi nag ci saayir ak ci baatin moo waraloon nga koy dégg fu nekk waaye fii ko Sëñ Tuubaa dayaloon euh, li ciy tew feex ji mooy yoonu murit wépp ñoo bokk barab bi ndax képp kuy murit rek li nga nekk fii la sosoo yàlla di wëlbati di wëlbati ba jagleelaat Cheikh Mouhamadou Lamine moom bis biñ koy fàttaliku ci àdduna ñu koy defe si fii yoon wi sosoo woon kon ab cëram ci yoon wi kenn nattable wu ko jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax yàpp naa ne kàddu yi ku ko dégg di nga ci yëg pëstéef bi nga koy wax waaye di nga ci yëg xam-xam di nga ci yëg tamit ne teew nga ci barab boo xamante ni am na looy xeeñtu bu baax a baax a baax mm-hmm. eh, jërëjëf sëñ Saliou xam naa benn laaj rek sëñ Saliou yaa ngi wax léegi ne ñu bari fi leen jébbuloo fi la yoon wi kii yoo eh, lu lu lu lu waral mag ñi jëriñu woon ci sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax ba koo ci gis ci melawam ak ci doxi nag ci yëppam nga xam ko mm-hmm. te léegi daa mel ni jëriñu daa daa jafe te la fi nekkoon a ngi fi waaw xam nga baatu jébbalu boo ko masaana wax sëñ bi daray wax dégg nañu ko boo ko jëfee nag ñu téye ko mag ñi nag seen njébbal ga dañ koo jëfe woon ñoom jébbaluwuñ ci ay wax rek jébbaluwuñ ci diwey sama sëriñ ñoom biñ jébbaloo ci sëriñ bi danoo soobu desaluñ dara di dégluy ndigalam mu tere kenn du leen ca gis saa yu ñu xëyee seenu bëgg ci moom di yokk ndax dégg nga asir doxu fi ma xabat ci say abat ji sëñ bi waxoon ci sifatu sadixil murid fii la mag ñi nekkoon nekk giñ nekk foofa nag te innal fawaida alal aqaidi njariñ yi moo ngi tënku ci pas-pas yi ñoom seen pas-pas ba fecc ku moo leen yóbbu woon ba kenn ku ci beru di am Ahmadou Bamba léegi nag ñoom Saliou Samb ni ma ko mën a waxee dañuy jébbalu ci wu làmmiñ ñuy jébbalu ci wu làmmiñ waaye nag ndax jébbal nañ sëñ bi seen bopp ndax jébbal nañ sëñ bi seen xol yeeg seen xel yeeg seen xalaat yi ndax yaa ngi dégg tarkul inhtiraat salabul ixtiyaar suñ tubaab boole ni ko ci si fay waaye léegi ñun ñooy tànnal suñu bopp daanaka rek ba noppi ne ay murid lañ léegi sax nga jéggi ci am Saliou Samb mu naan murid sadix la te murid sadix dem nañ de murid murid sadix dem nañ de waaw moo waraloon seen jariñu ga nag ba koo ci fekk mu ci barab te fekkoo fa sëñ ci saayir muy am Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa da leen daan transformé ay Ahmadou Bamba waaye ci seen pas-pas yi la daan jóge di leen ko transformé waaw kon pas-pas booba comme ne ci yow ba tey ji nga mën a doon nga mën a nga boo leen jotiwut nga jege ji leen waaw <laughs> jërëjëf sëñ Saliou jërëjëf liñ doon laaj leer na naañ leer na naañ alhamdulilah